aux enfants de lutter pour la libération de leurs parents, de lutter pour euh, la libération des détenus et de faire les tours entre la prison et la maison au lieu de rester entre l'école et la maison. Bonsoir tout le monde Je suis venu à ñu fi Je suis man la doomu Nandi depuis que ko avons ba souffrance rek la bànneex mënul feeñ suñu kanam ñu jàpp nit ak ay noppam di ko wër pendant 15 jours ci koñ kenn xamu ko bu doon terroriste koñ ba mu dëkk ñëpp koy xam ratissé koñ bi mën la wax ñaata ami amidia moo fa nekk te moom ba tey kenn xamu ko boutique bi dend ak suñu koñ ñëw nañ ba foofu policier yi laaj ko mu ne ko xawma ma kuy amidia xamul lu dul liggéeyu wàcc tout le temps moo bu petit soin ci ay doomam di ñu toppatoo di ñu tette fu mu jëm ñun lay àndal bu wàccee du dem fenn xamul fenn nga xëy un bonjour ne ko terroriste la diñ ko force spéciale tur boobu maa ngi koy door a dégg bu ma juddoo ba tey ma ne sama dëkk am na démocratie moom lii bu ko daloon extérieur pays bu mën a doon état bi ban taxawaay lay am pour dimbali ko ci lool pour mën ko delloo ci Sénégal tey moom moo taxaw di ko jiiñ loolu tëj ko 19 mois ci kaso jox la nit ak ay noppam dara wokk ko mu feebar jeex ba maa ko ëpp booy wax ak moom dangay siggi di ko xool di laaj nag sama yaay laay waxal di ko xool ci kaw ne lii kañ la ko dal soo demee bi ñu may la 10 minutes koo xam ne tout le temps yenn doon nekk benn 10 ñu jékki saay tàcc comme ça jeex na comme si sa dund fa la nga war a ñibbisi doo am lu la àndi ngay xalaat ban oto laa war a jël ban bus moom war a delloo si ani sama yaay ci yan anam laa koy bàyyi tout le temps yaa ngi yeewu fajar dem marché woo naa la bëgg naa lii toggal ma ko nga togg teg ko ci cag-cag mu yóbbu ko ban heure la si jot kañ la ñuy caxat-caxatee lekk bi ba joxo ko mu mel ni ñam xar nit war koo lekk ci ban dëkk lañ nekk ci ban réew lan moo xew ñii ñi ngi dee ñii ñi ngi daw di génn ay jeunes musuma bëgg politique mais tey dinaa ci soobu duma xeex ndax sama yaay lu mu metti metti maa ngi koy gis ana ñi dee dañoo mën di jooy rek mais ñi dee gisatuñu dinañ yuuxu nag ndax nit lañ leen jox bëgguñu ñu delloo ñu koo xam ne day dee ñuy dem ci armeel ya di ko fa ziyaare yàlla tere ñaanuñu ko dinañu xeex xare fu ñu mën a waxee dinañ fa dem wax mi ngi feebar torop sax su ma demee ba tey jii ma wax ak yéen mënuma koo gis boo ñëwee carrément dañ naa la xam naa ni doomam nga mais mënoo ko gis noonu nga siy toll togg sa añ indi ko ñu ibbi bunt bi tàllal la loxo comme si yow ñoom denc ñu nit. hôpitalu lëmm heure boo jumee si bunt bi ñëpp di xool ku nekk fii ban détenu moo war a nekk fii ki nekk fii lu mu war a def dara sama yaay du def kat. djum nañ bu doon théâtre mané li personnage buñ ko jox du bossam xamul lolu bu doon luy raye du dem di ma reconnaître na kanam yu bari fi ni na heure buy dem man lay andal japp sama loxo bokal xéxal pour sa deuk xéxal pour sa rew bu dee xeex tax nga dugg kasso dina fa dé ndax même bu nu dañuy xéx on est prêt à se battre pour lépp moom mooy ki ñuy abal ñi ñuy rey gënuñu leen ñi nga xamante ni ñi ngi ci kaso bi di génn ñu leen di taaj te ëllëg ak si biir boo daan génn kaso da ngay bàyyi ba guddi làqatu ñu naan daa tukki woon léegi buñ nee diw day génn sax dañuy dem teeru ji la di la tàccu di la seet courage bi loolu ak yépp pour xeex dong la soxla naa sama yaay sama wet lu ma am moomu ko gënal soxla ma xaalis bu ñuy indemniser kenn liy dund metti metti na ba pare chaque jour nga dem kaso di paas di togg ay añ di dem visit lum ne la soxla naa ko même boo ko amul di nga ko dëmm ji bañ rek nga ne ko amoo su ñëwee di dund souffrance nga koy xool mu naan la ça kaso jàmm nekku fa. gisuma ko entre quatre murs tëddal jugal mel ni ku yor xar yeewal lekkal naanal foofu jàmm mënu faa am nañ waxante dëgg man sama yaay dong laa soxla soxlawuma seen leneen ñi ne ci kaso bi nañ leen bàyyi delloo ma nit ak i noppam kuy dund gënuñu ko mën a faj liñ mën ci moom ñoom xaaj ba xaajaat ba mënuñu ko ci ñoom mais nañu xam ni bañ leen koy jox dafa wéroon péng te bis buñ leen buñ ñu koy delloo na wér péng bu ko dërëm jot soxla naa sama yaay moo may dimbali si sama jàng moo may dimbali si lépp ay conseil am lépp néegam sax mënatuñu faa toog boo duggee kii ngi jooy mu mujjee dem visite sama rakk bi dafay oto bi yëpp daf ko jooy moo xam mu ni ma sama yaay dafa jeex dafa tuuti dafa changé soo waxee mu ne la ça va nangu maax la lay dund lu nelaw ba bër seet ndax lan mu ngi toog di xalaat naan kii lan moo ko war a jot lan moo ko war a dal tas yaakaar weesuwul nga ne nit ki day génn mu yeewu 8 heures sangu préparé toog ci buntu prison ba 22 joxoo ko lu leer toog ba mu neex la nga génn nga ne ko jotuma kayit comme sa moom lan la war a xalaat nga dëkkee jooy munoo reetaan amoo foo jëm xamoo looy def la waroon jàppale bu ñëwé té gisoo ko sa xel délu ci moom fo romb ñu yërëm la nit ñi ngay xool do mëna changer do mu a ngi ni do mu a ngi ni ñëpp di compatir mais à la fin ban dëkk lañ nekk def na juger leen ko ngén na ko tëj nañ ko loy sét 19 mois gisoo ko kañ nga koy giss kenn musul gis li man xawma Sénégal la nekk xawma fuma nekk kenn du xeex ndax lan état boo xamante ni groupe bu personnes yoo xam ne matuñu sax vingt pas yu dee yoo xam ne buñ dee woon Sénégal sax dara du ci yëngu ñoom ñoo bëgg a téye Sénégal nii di def lu leen neex ñi leen di jàppale na seen ceeb niin li jëntiwuñu avenir u Sénégal ëllëg bu fi état bi jógee man sama ceeb est-ce que deeti na niin parce que ci truand nga nekkoon ci sàcc sama yaay une femme de valeur digne bëggul dara lu mu liggéey pour Pastef la lu mu yëngul pour lool la diw mi nañ ko dimbali mu avancé nañ ko dimbali mu def nii soxlawul dara parti boo xamante ne bu doxee cent franc ñoom ñoo ko doxalal seen bopp xaaruñu ku leen ne solal ti set junnee ngi nii ñëpp di xeex paa mag ndaw xale jeune jeunesse bi soxna la leneen lu dul lii ñëpp a ngi ñafe ñiy dugg ci gaal yi nag di daw dañoo sonn ñu ngi ñaan daal ñu bàyyi sama yaay ak bépp détenu boo xamante ni jàpp nañ ko famille yi nga xamante ni ñàkk nañ seen doom ñu ngi leen di masaw bu baax a baax te di sàkku si yéen ngeen ñaanal ñu bañ ñoo delloo suñu yaay ci cercueil loolu dong lañ leen di ñaan merci beaucoup ñu jox kàddu gi soxna jaara asalaamaaleykum wa rahmatullah tey moom sama xol tooy na ba ma ñàkk